ma ne dinaa ko def vidéo spéciale boo xam dinaa ko dugal après moo xam muy TikTok moo xam muy YouTube képp koo xamante ne cat daf ko sonal wala làmmiñ daf ko sonal daf koy wax wala liggéey parce que boo xoolee sax ci kii daf koy wax dafa naan soo bëggee yàlla musal la ci bépp liggéey bu bon wala kortu kortu parce que am na ñoo xamante ne ay kortu la ñuy sànni te dafa garaaw nag parce que kortu nit mën naa toll supposons ba Mali sànni ko nit ku nekk fii Sénégal mu jàpp ko nit mën naa ci Sénégal sànni ko ku nekk bitim réew gi jàpp ko day la plupart bu xasee bu dugg ci doomu aadama bi xanaa mu am taxawaay dëgg wala am euh, ab jàppale dëgg mais lu ko mooy boromam donc parce que non seulement dina la protéger bu la

soo ko joxee yàlla mën na laa dimbali ba day dañ mu ni boo bëggee donc liggéey boobu dañ nan ngay def nee na da ngay bind lii muy bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallim amin léegi nag amin bi ngay tàmbalee maanaam li may joxe ni benn fatiha lay nekk ba mu jeex mooy bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki mi diin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 يعني كما سيتي آمين ولا دالين عليهم معدوب غير عليهم أنعمت الذين صراط المستقيم صراط اهدنا نستعين وإياك نعبد إياك الدين يوم مالك الرحيم الرحمن عالمين رب الله الحمد رحيم الرحمن الله بسم منام بوكو دفي لولو موي فاتحة بيغا خمني دنكو دب بوكو دفي بو بيندي لول بن يون nga tek ci suratul falaq من شر ما قلق ومن شر قاذق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاد إذا حسد nga bind ko ñaata nga bind ko sept fois soo paree nga teg ci qul a'udhu bi rabbin nas maliki nas ilahi nas min sharri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi suduri nas min jinnati wa nas nga bind ko moom tamit également sept fois donc lii ngay jël nga bind ko bind bi bariwul boo koy bind même pas cinq minutes dix minutes nga bind ko dem sa yoon su ko defee nag saafara si yaa ngi koy boole xorom léegi nag xorom bi li gën mooy na nga ko utal xorom boo xam mu bañ a nekk ay sel iodé mooy xorom bi nga xam dañ koo jot a defaraat mais boo amoon xorom boo xamante ne surtout yi nekk ci saako yi nga xam daanaka brut bi la dara gënu ko bu ko defee nag nga baxal saafara bi ba saafara bi bax nga boole ci weñ bu ñuul weñ bu ñuul nag buñ ko waxee par exemple semmiñ mën na piju semmiñ mën naa nekk pik mën naa nekk paaka mën na nekk donc weñ daal ngay jël nga boole ko ci baxal ko ba mu bax tàng jër boole waale ci tamit xeeru dënnu nga boole ci xeeru dënnu également xeeru dënn donc loolu ngay jël saafara boobu ci kàttanu buur yàlla fexeel ba na nga ko jëfandikoo trois jours na nga ko sangoo trois jours su fekkee nag koo xamante ni amaana trois jours yi day compliqué ci moom na ko sangoo benn yoon soo ko defee ci kàttanu borom bi yàlla subhanahu wa taala lépp lu mu fekkoon ci yow ci liggéey lépp lu mu fekkoon ci yow loo xam ñu ni korte la def def bu mu mësa fekk ci yow sunu borom dina la dimbali ci kàttanam ci am amoon ci mën-mënam insha allahu rabbi dana dañ ba set wicc mën naa ko répété waat mooy boo defee bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammad wa sallim amin da ngay def wala dalin alayhim maghdubi ghayri alayhim anamta allazina siraatal مستقيما صراط اهدنا نستعين وإياك نعبد إياك دين يوم مالك رحيم رحمن عالمين رب الله الحمد رحيم رحمن الله بسم دونك li ngay bind so paré nga bind khulaud rabbil falaq juroom ñaari yoon bind qul aoudu rabbi naas juróom ñaari yoon boole ko weñ bu ñuul ak xorom ak ak ak xeeru dënnu nga baxal saafara si ba mu bax insha allah rabbi bu ko defee nga sangoo ko képp ku la liggéey képp koo xam li dal na la bu la neexee bul dem ci sëriñ bul dem ci kenn defal ko sa bopp képp koo xamante ne def nga ko ci kàttan borom bi yàlla subhanahu wa taala li lay njëkk a wan ni que ni mbir mi def na effet mooy que ne da ngay yëg ni sa yaram bi day oyof toll toll toll toll lu ñu def la honnêtement xam ko mais saa soo toogee cest à damay wax ne lii pour réinitialiser sax yaram la soo toogee benn temps rek bindal lii nga dem nga sangoo ko sa yaram si kàttanu yàlla di nga gis ne di nga nelaw ba yàndoor lépp loo xamante ni sunu borom tegoon na la ko ci nattu luy mel ni xel yu tëjoog yooyu d'habitude bu la liggéey jàppee noonu la sa xel di noonu lay def da gis ni da ngay wu di gaaw énervé wu tamit surtout donc incha allahu rabbi loolu baax na si lool lool lool lool lool lool Serif